rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafi alambiyaai walmursaliin nabiyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi hadiyihim ila yawmi ddin amma baad mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ñu xam ne bokk na ci ni suñu boroom tabaraka wa taala binde nit dafa bokk ci ay melokaanam di fàtte ak di miis mooy mbir bu yàggee lu mu metti metti day mujj miis ko mooy da koy mel ne ku ko fàtte bokk na ci ay melokaanam itam yàkkamti bokk na ci ay melokaanam itam yokkat maanaam mujj doy la ci mbir moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax ne kóllërante woon naa ak aadama ci ndigal luñ ko digal waaye nee na mu fàtte ndigal la walam najid lahu azma nee na fekkuñu ci moom ak dogu te mooy bi ko borom bi ne dëkk leen biir aljanna yaag sa soxna xéewloo leen mboolem bi ci biir waaye nag genn garab gi bu leen ko laal waaye iblis ñëw jax jaxal leen ba laal garab ga aadama fàtte la mu waqante woon ak borom loolu kon ci bindiinu doom aadama la bokk moo tax jafe na lool ci nit muy sax ci mel mbir ak di ci wéy te du du ko soppi du ca soppiku du ko wutal leneen loolu jafe na lool ci doomu aadama bu dee ci mbiri àdduna loolu ayut léeg-léeg sax dañ koy sàkku jóge ci melokaan dem ci beneen bu fekkee ba ñuy dem moo gën ba ñu nekkoon moo ko gën a rafet waaye bu dee ci mbirum diine moom loolu kenn du ko ci nangu diine lu sax la du soppiku dee su ko soppi dee su ko wutal ndax dafa bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala ba tax borom bi ne yusabbitu llahu allazina amanu bil xawli saabit xawlu saabit la ko borom bi tudde wax ju sax la kon ku ca nekk itam da nga caa war a sax fil xayaati dunia wa fil axira diine itam dafa mat ba noppi amatul luñ cay yokk wala luñ cay wàññi wala luñ cay wëlbati al yawma akmaltu lakum diinakum ni nga ko fekk rek noonu ko koy bàyyi borom bi nee na matal naa seen diine mottali sama xéewal ci yéen war a diitu lakkumul islaama diina lislaam nii mu mel moom laa leen gërëmal mu nekk seen diine muy ba aaya bi wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lislaam boobee mu doon dund ak i saxaabaam lislaam boobee la suñu borom wax ne moom la gërëm mu nekk diine wax ne wa man yabtaqi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu lislaam boobu mu gërëm nag ku ci yokk lenn wala nga wàññi ci lenn wala nga soppi ci lenn ba mu wute ak borom bi tabaaraka wa taala leen loolu du ko nangu wa huwa fil axirati min al xaasiriin te ka def loolee bu yowmal xiyaamee ci ñi perte lay bokk loolu moo tax kon nit dafay aaja di fàttali fa mu toll ndax gannaaw dafa gaaw a fàtte dafa gaaw miin mbir ba su ko miinee duutu ko joxati yitte jam ko joxoon moo tax borom bi ne wa fa inna zikra tanfaul muminin deel fàttali ndax li day jariñ ñi gëm yàlla day tax ñu gën a sax ci seen gëm yàlla waxaat ne fazakir in nafaati zikra sayazakkaru man yaxsha fàttalil su fekkee fàttale gi dana jariñ waaye ñi fàttali jariñ nag mooy ñi nga xam ne bàyyi nañ xel seen borom tabaraka wa taala buñ deelee suñu borom nee na loola rëy fi ñoom lool wax jooja ñu am fañ koo teg ba topp wax jooja buñ ne lee yonente bi sallallahu alayhi nee na itam ñu topp loola mbokki julli sax ci diine loolu càkkutéef la loo xam ne lu cosaanu la ci ab jullit bu dëggu bu bëgg a soobu siraatal mustaqim ànd caakuk dogu ànd caakuk njub ndax diine dafa nekk loo xam ne dundu nit ki lépp la ëmb amul fu mu yem dind bi lépp la mooy projet dund bi la mën nañoo wax ne sax mooy sababu dund bi andi giñ ñu ci andi ci àdduna ngir ñu di fi dund diine rekkat mooy sabab bi ndax borom bi nee na wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudu bindul ak nit lu dul ngir ñu jaamu ko te ci diine ji mu wàcce rek lañ ko mën a jaamu kon dund bi yépp sabab bi li ko tax a jóg mooy ñu jaamu suñu borom tabaraka wa taala ci diine ji nga xam ne moom la dig la ñu jaamu ko ci borom bi tabaraka wa taala ne yaa ayuha allasina amanu taqullaha xaqa tuqaatih wala tamutunna illa wa antum muslimun yéen ñi gëm daal yàlla ragal leen yàlla dëgg dëgg ragal te nag ngalla bu leen faatu lu mooy fekk na ngeen nekk ay jullit kon yamukaay bi mooy faatu diina yamukaayam ci àdduna mooy faatu màggat ak feebar ak ñàkk ak yooyu yépp du tax nga bàyyi diine wala nga soppi ci lenn wala tamutunna illa wa antum muslimun borom bi dal wax ne wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub nee na ibrahima loolu la doon dénk ak njabootam Yaaqoob it loolu doon dénk ak njabootam di wax ne yaa bani inna allaha astafa lakumu diin gis nga yàlla moo leen tànnal diine du loo ngeen di wutal seen bopp wala lu ngeen di fental seen bopp du ci def yàlla tànnal na leen ko ba noppi yàlla nag ku mu tànnal ba noppi war ngaa doy loola mu la tànnal fala tamutunna illa wa antum muslimun ngalawaay bu leen faatu lu mooy fekk na ngeen nekk jullit ca na leen ko suñu borom tabaraka wa taala tànnale ci ngeen yem ca bañ caa yokk bañ caa wàññi bañ caa soppi waaye ànd ak loolu lépp jafe na doomu aadama lool muy sax ci diine léeg-léeg ci menn benn melokaan am na ñoo xam ne moom lu jóg rek ñu ànd ca loola ñoom la borom bi naan inna lasina amanu summa kafaru ñoo xam ne gëmoon nañ gannaaw ba ñu weddi te mooy ngëm nga boo ci soppee lenn rek bokkaale yàlla wala nga dugal te lu ca bokkut kooku weddi nga summa amanu gannaaw ba ñu delsi waat gëmaat waaye summa kafaru ñu weddi waat gis nga kon ñooñu dañuy dem ak dikk rek dañuy dem ak dikk su mas daa doo ko far la ñuy mujj nag muy kéefar ga la ñuy mujj nag far kéefar ga muy mujj dolliku ba ngëm duutu fa nekk mu ne ñooñu lam yakunillaahu li yaxfira lahum ñooñu yàlla du leen jéggal ndax amoon xamoon nañ ak njub xamoon nañ ngëm yàlla ba mu leer gannaaw ba ñu bàyyi ko fa dugg ci leneen gannaaw ba ñu dellu siwaat gannaaw ba ñu delluwaat duggaat ci leneen yokkaat ci leneen ñooñu borom bi tabaraka wa taala nee na du leen jéggal te du leen gindi ci aw yoon bokk na ci li ñuy nekk li jële ci ali bin abi talib radiallahu anhu mu ne nit ñi ñett lañ fa aalimu rabbaani koo xam ne am na xam-xam waaye ma koy dund itam nag xam-xam booba nekk aalim rabbaani boroom xam-xam boo xam ne boroomam rek lay jaamu du xam-xam bu mu wutee àdduna wala bu muy wutee darajee àdduna waaye allaaxira la koy wute ak koo xam ne moom amagul xam-xam waaye mi ngi xamlo nee na kooku mi ngi ci yoonu mucc ak nag koo xam ne moom nee na mariiran wa rek la yemiloona maa kulli riix ngelaw lu jóg mu ànd ak moom ku ŋaax mu ànd ak yow ca ŋaax ya ndax nee na ñooñu dañoo leerluwul ci leeru xam-xam wéeru wu ñu itam ci ponk boo xam ne bu dëgër la maanaam di dellu ci ay boroomi xam-xam ju du leen leeralal li nga xam ne mooy njubug suñu borom tabaraka taala lu may dañuy demal seen bopp rek lu ñu mujj dégg rek ca loola la ñuy ànd moo tax nga gisu woote yu bees yii di xew yépp waroon ngaa wax ni nit ñi kenn ku ne am na lu nekk ba noppi waroon na ku woote doo gis kenn ndax nit ñi am nañ lu nekk ba noppi waaye lu tax ñuy bàyyi la ñu nekkoon di la fekk si gis ko woote bëkk démboo rek mbooloo mu baree baree bari topp ko man ngaa laaj ne waaw ñii ko topp fu ñu nekkoon kuñ toppoon kon moo lay xamal ne ñooñu jàpp ñu woon ci dara lu dëgër lu mujj ñëw rek moom moomee ñu toppin bu ñu gisee leneen lu gën a bakkan gën a yees ci ñoom ñu bàyyiwaat ko demaat ci leneen mooy amanu suma kafaro suma amanu suma kafaro dañuy dem ak dikk rek bokki jullit yi kon sax ci diine yi lislaam bokk na ci li ëpp solo lu ab jullit war a gën a yittewoo ci di ko ñaan borom bi tabaraka wa taala boo tax suñu borom ngi wax ne ñi daan ànd ak yonent yi wa ka'ayyin min nabiyyin xaatal ma ma'ahu ribbiyyuuna kasiir ñoo xam ne dañ daan xeex di ànd ak yonent yi waaye fa maa wahanuu limaa asaabahum fi sabiilillaahi wa maa da'ufuu wa maa stakaanuu mësuñoo doyadi mësuñoo yàccaaral lañ daan wax mooy rab rabbana xfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin wa ma kaana xawlahum illa an qaalu nee na seen wax yépp mooy yàlla yàlla nga nu jéggal yàlla nga nu jéggal suñu ëppal gi ñu ëppal ci suñuy mbir te itam yàlla nga nu saxal te yàlla nga nu dimbali may nu nam ci kaw ñi nga xam dañoo wedd yàlla jibar ya fir aw na doon jibarloo ba gëm yàlla ba leen firawna tëkkoo dañ ne ko wa ma tanqimu minna ila an amanna bi ayati rabbina lamma jaatna waaye daal di ñaan ne rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin yàlla yàlla nga nu may sottinu ak muñ te nga faat nu nekk ay jullit taalut moog ña àndaloon ba ñu jàkkaarloog jaalut ak i soldaaram dañ ne rabbana afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin te ñoom booba mbooloo mu néew lañ moom la borom bi naan kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kasira bi isnillah waaye bañ jàkkaaloo mbooloo moomee la muy bari bari te du mbooloo mu gëm yàlla te ñoom ñu gëm yàlla dañoo ñaan suñu borom tabaraka wa mu defal leen ak muñ saxal seeni ndëggu ci kaw siraatal mustaqim dimbali leen ci kaw ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla bokk na ci suñu borom tabaraka wa ci jaam ñi mu leeral ci téeréem bi leeral ci làmmiñu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ay sabab yoo xam ne day dimbali jaam bi ci mu sax ci diine ji nga xam ne mooy diiney dëgg sabab yooyu la ci jiitu mooy jublu ci alquran ci di ko jàng di ko mokkal di ko jéem a dégg di ko settantal waaye di ko jëfe alquran mooy sabab bi gën a mag ci bu gën a mën a saxal nit ci diine ju wér yoo xam ne kenn du ko mën a jàdduloo ndax loo ko wax rek mu wuuteeg alquranul karim mu bàyyi fa loola moom toppaat al njubug alquranul karim yahdi ila rus alquran moom ci njub rek lay jëmale nit moo tax borom bi tabaraka wa taala ba yéefar yi di wax naan alquran lu teewoon ñu wàcce ko benn yoon law laa lawla nuzila alayhi alquran jumlatan waxida borom bi ne kazalik nii laa koy wàccee ndànk-ndànk li nu sabbita bihi fuaadak ngir ñu saxal ci sab xol dëgëral ko warattal naa ko tartila moo tax alxuraan kenn mënta xëy mokkal ko ci benn bis wala sax ci at foog nga def ci diir di jàng di jàng même boo ko mokkalee sax tax ko da ngay dem ko ñëwaat te saa boo ci rombee da nga ciy jariñuwaat lu bees loo xam ne day mel na lii yaa ngi koy doog a gis kon alxuraan du lu ñuy noppi ñaareel ba ko ci sharia ak nag di ko jëfe borom bi ne walaw annahum faalu maa yuazuna bihi maanaam li ñu lay waar nga di ko xam ci sharia di ko jàng boo ko doon def la kaana xayran lahum wa ashadd tasbita nee na loolu aw yiw lay doon te moo la gën a mën a saxal ci diina ji de kon diina ji li la ci gën a mën a saxal mooy loo ci xam ci lu wér nga daal di koy tàmbalee jafe la nga ca man jafe gi mooy li la cay saxal waaye soo dee xam rek di dem waaye li nga xam jafewoo ci dara loo ko xam-xam-xam waaye jafe woo ko génn la ci dana yomb ñetteel ba di jàng ndet lit yonent yi fi ñu jaaroon di ko settantal te nag di ko jéem a roy la nga ca mën a roy nga di ca roy ndax ay nit lañu bu suñu borom tabaraka wa taala di nettali seeni jaar-jaar loola ngir ñu roy ko la moo tax borom bi ne wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul maa bi bihi fuadak ñi ngi lay nettali xibaari yonent yi loo xam ne da nga ci mën a saxal sab xol ci ngëm yàlla saxal sab xol ci wéetal yàlla saxal sab xol ci topp siraatal mustaqim ba kenn du la mën a jengloo kenn du la ci mën a jële ku settantal waxi suñu borom tabaraka wa taala ji wax ci ibrahim alayhi ba nga xamee ne nit ña nee nañ lakk leen ko dimbali leen seen xeram yi borom bi ne xul naa yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim ndax ibrahima xasbunallahu wa ni'mal wakil la wax bañ koy sànni ci biir sawara wa ci boromam rek la del si wéeru ci moom waaye gis nga ni ko borom bi walloo saxal ko ci diineem la mbir may métti métteeg la muy raglu raglu taxul mu rëkkile ca ngëm yàlla gam nekkoon ak wéetal yàlla gam nekkoon borom bi ne wa araado bihi kaydan fa jaalnaahumul axsarin te suuratu safaat mu ne fa jaalnaahumul asfalin dañ ko doon jéem a fexeel waaye def naa leen ñu perte def naa leen ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo suufe kon da nga ci xam ne ku wakkirlu ci yàlla ak lu ñu la tëkku tëkku ak lu mbir yi tar-tar boo delloo ci sa borom tabaaraka wa mu wallu la naka noonu ko seetantal waxi suñu borom tabaaraka wa taala ji waxoon ci Muusa alayhi salaam moom nitam ña ba ñu demee ba na di leen topp ba di leen bëgg a ñaari mbooloo yi di séenante falamma tara aljamaan qaala ashaabu Muusa inna la mudrakuun ñi àndoon Muusa ne ko ah Muusa dab nanu firawna dab nanu ba noppi ndax géej gaa ngi nii ci sunu kanam te itam firaa ngi firawna ngi nii ci sunu gannaaw Muusa ne kallaa inna ma'iya rabbi sayahdi déedéet kenn mënuñoo dab ndax lan suñu borom tabaaraka wa taala la ñu àndal te danañu gindi gis nga kon na ko suñu borom tabaaraka wa taala musale ñeenteel ba itam ci lii dimbali nit ki ci mu mën a sax ci diineem di bari nag lu muy tudd tur suñu borom tabaraka wa taala bokk na ci sabab yi gën a mën a saxal nit ci diine borom bi ne yaa ayyuhal lazina amanu isaa laqiitum fi'atan fasbutu yéen ñi gëm yàlla su ngeen demoon ba jàkkaarloog ab kuréel ci jaamaarloo na ngeen sax bu kenn rakkile bu kenn dellu gannaaw waaye waskurullaha kasiran na ànd ak ngeen di tudd yàlla nag lu baree baree bare kon as sabaat day ànd ak sikrullah sikrullah muy tudd tur yàlla moom la dimbali ba nga xamee ne fit nay jigéen taxawoon na ci kanamam la mu wax mooy ma maazallah maazallah mooy yàlla tere lii nga may wootee sori yàlla na ma ci yàlla musal maa ngi ciy musulu ci suñu borom tabaraka wa taala loola moo ko musal juróomeel ba bokk na ci li gën a mën a dimbali nit ki nag ci mu sax ci diineem mooy mu xam li muy wut man a diine ji bul ci dekk nii rek di ànd di dundandoo mu nekk aada déedéet diine dafa am lu ciy wut li nga ciy wut mooy ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala li fee eggoo ca loola dara du la mën a wëlbati du la ca tee mën a yegg ndax jubluwaay bu ko nit amee xam la muy wuti lu muy romb lépp day gis ne la muy wutee ku gën a màgg ci moom moo tax suñu borom tabaraka wa di wax ci saxaaba yi ñoom li ñu doon wuti jaral leen bàyyi seeni alal bàyyi seeni kër bàyyi seen lépp lil fuqara il muhajirin allasina uxrijoo min diyaarihim uxrijoo wa amwaalihim ndax lan lu ñuy wuti yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ñoom dañoo xam ne leen tax a jóg yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana lu bëgg a dox seen digganteeg loolu rek pare nañ pour ñàkk loolu bu dee alal la pare nañ pour ñàkk ko bu dee dëkk pare nañ pour tuxu fa bu dee njaboot la pare nañ pour tàggali ko ak moom ndax yooyu yëpp kat su la téyee wuti ngërëmul yàlla bis dana ñëw nga ñàkk yooya te ñàkk itam nag la nga doon kon principe bu ki xam li muy wut loolu da koy dimbali ci mu mën caa yegg waaye su fekkee moom day riiran fu ñu jëm rek mu ànd jëm fu xamul lu muy wut si daa àndandoo ci mbooloo muy dem rek jëmul fenn kooku wëlbati ko day yomb moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne innamal a'malu binniyat wax bu gàtt la waaye dafa ëmb lépp maanaam mbir daal mi ngi ci yéene ji décision bi nga am li tax a jóg nga yéene ko loola mooy tënk jëf jëf su yéene ja dëgëree li fekk eggoo ca la ngay wut doo ko bàyyi bu fekkee yéene ji daa woyof nag da nga ca yomb jële lool moo tax mu ne wa innama li kulli mri'in ma nawa bu fekkee yéene ji soppi ko dafa yomb ci yow lool loo nekk bu nit wooyee la ci leneen nga dem ca loola loola bu koy def doo yegg fa nga jëm ab julit nag li nga xam ne moom lay sakku mooy texe ëllëg tabbi aljanna mucc ci safara loolu mooy sakkuwaay bi gën a kawe boo xam ne moom la jullit di wut fa man suxsiha ani naar wa udxila aljanna faqad faas koo xam ne sorel ko safara dugal ko biir aljanna kooka mooy taxe lu waaye mën a am ci amagoo loolu amagoo li nga xam ne moom ngay wut dëgg dëgg dëgg loolu ne la koy maye mooy tënk ci siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak i saxaabaam te ñooña ñooy kuréel bi nga xam ne ñoom la yàllay dimbali ñooy kuréel bi nga xam ne ñooy mucc ñooy kuréel bi yor pas-pas bu set wecc boo xam ne raxuñ ci dara jaar ci yoonu mucc topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa lu ñuy def lu nañ ñu teg ko ci dalil seen diine lépp dalil la qul haatu burhanakum diine moom foofu ngay jafandu rek qul haatu burhanakum bu fekkee burhaan ngay seet dalil kenn du la mën a sànk waaye su fekkee lu waay wax rek wax ja neex rek nga daal di ànd ca loola ku la wax rek tiiñal ko tiiñal ko ne ko lii nga wax wax ma fu mu nekk ci alquran bu nekkee ci alquran wax ma lu ca boroom xam-xam yi jiitu woon wax asalafu saalih ñi la njëkk a jàng alquran luñ ca wax ñoom ñu dégg aaya bii nga bëgg a wax wax ma fu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ndax hadis bi wér nag wérul lu ca borom xam-xam yi jiitu woon wax yooyu yépp ko ca tiiñal boo tuddee def siiwa mucc bëgg a génn ca réeral gëm la bëggoon a réeral waaye su fekkee lu waay wax rek nga nangu naan askay askay di fottasu loola kon da nga yomba sànk lool waxee ba noppi lu wax jee rëy rëy ne nga leeral nu lii nga wax nag moom fu mu nekk ci alxuraan bu dee aaya bi fii la nga ñëw ko du bëgg nga leeralaat nu dee aaya yooyu nga leeral nu bu def hadis la itam bi fan la nekk lan mooy sanadam ndax wér na ak wérut ak it borom xam-xam yi lu ñu déggee woon xadis boobu soo ñu leerale loolu ba noppi rek ba lépp wér nag ah nu doog a ànd ak yow ci li nga wax loolu bu doon demee noonu sànkaatekat yépp dootoo leen déggati foofa dañ naan ñuy kontar ñoo fa nekk foofa neexutu neexutu la waxtaane waaye su fekkee dañuy daal di fot na su génn xaalis di la jox ngay sànq nit ñi loola mooy li nga xam ne mooy wàcce nit ñi yoonu siratul mustaqim yasudduuna naasa an sabilillah mbokki jullit yi sax nag ci dëgg ak wéy ba faatu ci ndimbalul suñu borom tabaraka wa taala ci la ko jaam bi mën a amee moo tax na lu nit ki góor góor da koy ñaan suñu borom tabaraka wa taala asabat te bom naagu benn yoon nag moo tax ñu naan rabbana la tusix xuluubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta al wahab la tusix xuluubana ndax nag kat falamma zaaxu azaaqa allahu xuluuba ku jeng yàlla bàyyi la nga nga jeng moo tax nag ñuy ñaan yàlla bu suñuy xol jeng ñu sax ci siraatul mustaqim ba daje ceeg suñu borom ndax kat yonente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moo gën a sax ñépp ci yoon bi borom bi nee na ko bu mën a dimbaliwul woon dëgëral la bootul da nga jeg laqad kitta tarkanu ilayhim say an xalila walaw la an sabbat naaka laqad kitta tarkanu ilayhim say an xalila léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag la ñu wax loolu kon keneen ku mën a doon waroo naagu ci sa bopp waroo naagu ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu saxal nu ci dëgg faat nu ci dëgg googu ñu dajeeg suñu borom tabaraka wa taala ci dëgg googu te mu dëggu te sell te borom bi tabaraka wa taala nangul nu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain